ñu xam nekk jigéen yi am nañ doole transformer société yi te nag ñu jàppale leen ba ñu mën a rek avancer nekk ay société équitable jigéen yi ak góor ñi yem képp ci njàng mi te jigéen yi mën a jot ci liggéey bu ñu yellool gannaaw bu ñu paree seen jàng wóoy yi di soxal ñu bare ba tey naam réew yu bare def nañu ay jéego ngir xaj ak seen bañ a amati ci njàng mi éducation jigéen ñi ñu ñu def ci effort ba nga xam ne moom ak bu jigéen bu góor ñi ñooy xaw a tolloo. gannaaw bu ñu wëyee di nemmeeku. lu ñuy néewale jàngu jigéen ñi. institut francophonie bi yor wàllum jàng ak formation. 2021 ba tey di amal ab karawaan ngir gën a ñaax askan wi. ci solo su jàngu jigéen te sax ñuy waajal ñaareelu édition bi. cette caravane vise vraiment. bi li caravane nag mëbëtam mooy ñu gën a yee enseignants yi ak élèves yi ba ñu xam rek équité bu nekk diggante góor ak jigéen waaye itam ñu xam ne que xale yu jigéen ñi dañoo war rek nekk ci école yi ba am seeni diplôme te nag am liggéey bu baax mi nga xamante ne mën na leen yox mu war a jaar ci ay dëkk dëkkaan ngir dooleel teewaayu jigéen ñi ci lekkool yi. ren nag ñu fas yéene koo yaatal ba Mauritanie. c'est une caravane qui. bile caravane nag première édition am dañ ko amaloon côté bët Saalum bi waaye nag bile deuxième édition dañ ko amalee booru bët gànnaar bi te nag ñu dugalaale ci. kii di Mauritanie. avec une incursion en Mauritanie. ngir dem ci yi la dëkk. waxtaan ak ña fay yeewoo ngir ñu yemale góor ñeek jigéen ñi ci lekkool yi ministère bu yor wàllum njàng mi ci biir Sénégal fas yéene bokk ci bile karawaan. karawaan bi njëriñ gi mu am ci jeexitalu njàngu xale jigéen ñi mooy day ñëw. Euh, dooleel li ministère éducation nationale di def déjà ci njàngum xale yu jigéen yi. parce que daf ñuy jàppale ci li nga xam ne lii mooy suñu mébét mooy xale yu góor yeeg xale yu jigéen yi ñëpp dugg ci école yi mais bu ñu duggee tam ñu des ci. bii deuxième édition bu caravane relief daañu ko amal ci ñeent fan jàpp juróom-ñett fan ci weerum décembre. te mu war a jaar ci ay gox yu mel ni Thiès Louga Saint-Louis Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie.